aziz ndigal jëfee tapis rouge doon seen taalibe di liggéey ngir seen mbégte ci grand màggal Touba bi tapis rouge dafatina mëninam indi leen spécial promotion ci ay salon à 799 000 salon royal rafet te am qualité tapis rouge yéen la fi nekkal xoolal yi les salon ci 599 000 te si bii promo soo jëndee salon 7 places tapis rouge may la 4 coussins moquette ak table basse tapis rouge a sillonné le monde pour essayer de satisfaire sa clientèle avec sa nouvelle collection de meubles turcs des chambres à coucher de six battants à six cent cinquante mille ci ay design yu raffiné ak tapis rouge promo table à manger six places de à cent quatre vingt dix neuf mille tapis rouge am na ay salon cinq places ci trois cent cinquante mille waa lii moom neexul promotion spéciale Magalu Touba ak tapis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 di rafet lu seen ànd ak seen seen bii ngeen préféré mu nekk la seen leader yi ci diwaanu Bawol balaa yàgg incha allah ci mboolem goxi réew mi muy Rafah TV waaye seen jotaay bi ngeen mii nañ am muy sawtul xaq kàddu dëgg ngeen baaxoo ci ànd ak seen mbokk Mouhamed Fadel tey ñu ñëwati rek di waxtaan ci penc mi mbokk yi nag waxtaan woo gis rekk waxtaanee la xew ci pénc mi moo ko ëpp solo ndax sunu boroom mi bind jaam ñi da leen bind ba pare dénk leen ay xel te xel yooyu bokkul dénk leen yit ay xol maanaam ay jukko te jukko yu bokkul xel ak jukko nekk ñaari jumtuwaay yoo xam ne daanaka ci jëmmi nit ki ci jëmmi boppam jëmmi nit ki moom xelam ak jukkoom ci xeex lañ dëkk asumaak jukkoy nit ak jukkoy moroomu keneenam moom mbokkum nitam ak xelam moom ak xelum meneen mbokkum nitam moo tax waxtaan luy defar pinc mi ak luy boole dafa am solo te des koo war di dëkkal di waxtaane borom bi subhaanahu wa dafa wax ci alquran ne penc mi ñaar rekk ci ne dafa wax ci alquran leeral ne pinc mi daal ay la yéwén boo ko xoolee ñi fi nekk ci ay doomu aadama weesuwut ñaar muy koo xam ni luy defar pénc mi rekk ko tax a jóg waaye koo xam ne luy yàq ñi nga xam ne dañuy defar ñooñu sha'nuhum ma'ruf loolu mooy seen mbir te loolu yit xam nañ ko waaye ñuy yàq in am na ñoo xam ne dañuy yàq ba pare xam nañ ne dañuy yàq jublu ci yàq googu ñuy yàq kooku mooy bu garaaw bi mais am na ñoo xam ne seeni jëf ak seeni wax yàq lay doon mais ñoom rendre ñu compte sax ne ñoom ñu ngi yàq mbokk yi kee moom dafa fetteer lu dees dees dees te war a téye loxoom jàpp ci ne ko doo yàq am maa ki xamul kooku dees ko war a jaarale ci yoon borom bi ne wallahu yaalamu al mufsida min al muslih bu ko defee mboolem yàq woo gis yàq ba ca gën a garaaw mooy yàqu kàddu maanaam wax gis nga loo xamee ni yàqu jëf la te immeuble mi ñu nekk su ma ko yàqoon balaa yàgg mën nañ ko tabaxaat appareil bii nga xam ne moom laa jàkkaar lool muy jël li may wax di jël sama image su ma ko yàqoon balaa yàgg ñu defaraat ko la ñu jënd beneen mais kat li gën a garaaw ci yàq mooy kaddu dañuy wax ni jam-jamu jaasi mbaa bopp ak lu mu xóot xóot lu mu metti metti ànd ak jamono di wëy di dem balaa yàgg mu dal di wér mais jam-jam boo xam ne kaddu la wax ju ñaaw wax joo xamee ni wax ju rëy la loolu ba ilaa yawmi diin kenn doo ko fàtte ndax saa soo jàkkaarloog jëmm ji jibal kàdd jooju rek sa xel day dem ci wax wax ju rëy jooju nga xam ne ci la am ba tax na lislaam tënk jullit bi ne ko saa soo xamee ni yaa ngi wax na nga fexe ba la ngay wax nekk luy defar nekk loo xam ni day boole bu fekkee la ngay wax nekkut luy defar nekkut luy boole aw askan noppil moo gën foofu borom bi tabaraka wa taala wax ñu ci alquran ne lu waay di wax ci nit na doon lu rafet segam ci nit ñi lañ nekk te nit ñi ñooy pénc mi bu ñu toogee ci pénc mi suñuy yëkkati suñuy kàddu di wax ci derum nit la ñuy wax ci moom na nekk lu rafet asuma nag bu ñuy wax ci aw askan asuma nag bu ñuy wax ci aw population rawatina askan woo xam ne la ñu xam ci ñoom mooy dajaloo ak bennoo lépp loo xamee ni kàddu la gu mën a jur ak teqale kàddu la gu mën a jur ak tojante bopp mbokk yi loolu lislaam da koy daq te aji wax ja day lislaam yarlu na ko tegu na ko ci yoon moom mu nekk loo xam ne lu mat a bàyyi xel la bu ko defee kon naka jëkk ba àddina di baax kii waxal aw ñoñ dees koy tànn ki nga xam ni mooy waxal aw mbooloo dees koy tànn ki nga xamante si ni mooy waxal aw askan rawatina dees koy tànn njiit ci jëmmi boppam yenn saa yi sax mu waxal boppam du ko doy xanaa dafay tànn koo xam ni boroom wax ju rafet la ku mën a wax la mu waxal ko ngir lan ragal a wax loo xam ni dana gaañ nit mbaa wax loo xam ni dana teqale aw nit mbaa mu jur ay tojantey bopp ba àddina di baax mbokk yi lii des koy def mooy tànn kuy wax waaye tànn moom mi wax ci jëmmi boppam yi tànn ay baat ya muy wax waaye bi at booba nag mbokk yi wax dafa nekk loo xam ni boo waxee balaa moo tasaaroo daanaka mën ngaa dem ab diir bu yàgg yenn saa yi ay at yenn saa yi ay weer wax ja doog a tasaaroo te teewul kàddu yan daan wax ak ña daan wax kàddu yooyu dañ leen daan tànn bi jamono yàqoo waxukaay yu yàq yaatu lool jamono yàqu waxukaay yu yaatu lool wax ju tasaaroo ci ay minit yomb lool waaye ñiy wax mbokk yi lañuy wax nekk loo xam ne mën naa jur ay tojantay bopp ak teqale aw askan ci lu gaaw waaye teewul day mel ni ñoom ñooy wax mbir moomu ñoom rek lañuy ñuy dékk ay micro ñuy wax kenn ku ci ne xam na ni sunu jamono ji am na wax joo xam ne moo jóge ci ku ñuy wax gasto Mbengue nekk koo xam ne ci wàllu làmb lañ koo xam ak ya ca aju mu wax wax joo xam ne day mel ni ci zahir la muy wund mooy dafa bëgg a teqale aw askan maanaam jël njaay dóor leen ci jóg mu nekk kàddu yoo xam ni amaana waxaat ko ci kanamu écran sax du jaatu waaye li may faral di wax chaque jour rek mooy day am wax yoo xam ne dañ koy seetaan ba mu ëpp doole benn nit wax ko ñu bëgg koo far saafara déedéet gis nga wax yi nga xamee ni mooy jur ay erreur wala muy jur lu mën a jur taalum réew jërul banalise jërul xeet moo xam dafa jóge ci kii ma wax nii léegi ak mu jóge ci keneen waaye xool gis nga boo xoolee li commencé 2012 ba léegi mbokk yi daanaka dafa mel ni wax joo xam ni waxi farandoo la ak waxi askan ak waxu aw nit woo xam ni daanaka mën naa jur xeexoo ak xuloo dafa mel ni léegi comme naan ndox lañ koy amale te bu fekkoon nga xamante ni sax ña koy wax dañoo nekk ñoo xam ne ay sénégalais lambda lañ yoo xam ne daanaka kenn du dégg seen baat waaye dañ ne ñoom ay kilifa lañ te bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo waroon a defar jëlal ay ministre de la république ay député ay homme d'état yoo xamee ne taxaw nañ fi wax wax joo xam ne mënoon naa taal réew kenn waxu leen dara yamuñ ca bu fekkoon yam bu fekkoon ñoom ci seen jëmmi bopp sax lañ wax réccu nañ ca dellu waaye gisoo ci kenn koo xam ne ni wax na sax dellu gannaaw ki nga xam ne wax nañ ni moo leen jiite ñoom muy président de la république du ko naqarlu ña nga xam ni ñooy farandoo ca ñoom te nekk ay kilifa ni ñoom du ñu naqarlu bu amee ci boo ci génnee tuuti ci ñoom ñoo xamee ni des nañ tuuti damir xanaa boo maywul dañuy mel ni dañ leen di encouragé yenn saa yi nga gis ci ñoo xam ne dañ koy wax ba pare ñu gën leen a yokkal ak pal gën a yokk seen doom bay tànk yenn saa yi nga gis ci ñoo xam ne dañ koy wax ba pare ñu maanaam dem président recevoir leen photo woo ñoom ak la ci aju waaye mbokk yi damay wax ne dafa am loo xam ni des koo war a wax mooy gis nga kuy wax ku ne am na ku la tàllal micro ñooñu ñan la gis nga ñun ci suñu jëmmi bopp xam nga lan lañ aajowoo ñun Sénégal ñun Afrique d'une manière générale indépendance la ñu aajowoo indépendance ci lan indépendance ci suñu bopp doxalin woo xamee ni ñun lay doon ñun la concerné li ma bëgg a wax mooy ñun média bii nga xamante ni tey moom lañ fi bàyyi moom la ñuy am nii di ko doxal nii li ëpp média la boo xam ne dañu ko dicté waaye du ñoom wax yu ñaaw yi ak wax yu dérapé dérapé yi ngay dégg ci maanaam écran yi yëpp ak ci télévision yi xam nga lan moo ko waral injustice moo ko waral maanaam ak jeng jeng ci lan semaine bi wëral débat politique bi daanaka ki nga gis ci télé bële boo toogaatee ñaari fan moom ngay gisaat ci beneen télé ki nga gis ci télé bii nii bu la rawee ci débat bi bul sonn jërul ngay dem di ko seetaan fenn balaa yàgg xoolaat ko ci beneen télé moom ngay gis te ñoom ñëpp ñoo bokk benn programme loolu benn la ñaareel bi mooy fi mu toll nii ñun dafa mel ni suñu médias yi dañ ñoo gëmloo ni li fekk waxoo wax ju ñaaw li fekk nga xamante ni génnewoo maanaam image bu ñaaw li fekk nga xamee ni yàqoo der li fekk nga xamante ni sulliwoo mbootu jàmbur li fekk nga xamante ni woroo li fekk nga xamante ni bokkoo ci ñi nga xamante ni waxkatu lu ñaaw lañ duñ la teg ci kanamu ci kanamu écran bi déedéet ñoom ci seen jëm bopp ñoom médias yi dafa mel ni ñoom jëlatuñ nit ki recruter ko pour pour maanaam ay compétence wala pour expérience bu mu am ci liggéey waaye da ngay gis ñoo xamante ni ñi ñuy taxaw ci kanam écran bi da ngay gis benn télévision par exemple ñu am émission boo xamante ni li muy xeex mooy wala émission boo xam ne li muy jàngale mooy jikko yu rafet émission bi dañ ko di début à la fin émission bi waa jiñ fi invité day jàngal nit ñi lu baax waa jiñ fi invité day wax ne lu bon baaxut waa jiñ fi invité dafay woo nit ñi pour ñuy wax wax ju baax di ko feeñal ci penc bi émission bi day jeex même pas deux minutes ñu indiwaat beneen émission boo xam ne waa jañ fay dalal moom boo xoolee comportement rek maanaam sur le sant da ngay xam ni dafa contradictoire ak li sëñ bii doon wax ay nit sagari nit yu ñàkk fayda yoo xam ni tekkiwuñ dara tekkiwuñ dara ci seeni jukko parce que ay workat lañ ñëpp xam ko tekkiwuñ dara maanaam ci seeni wax parce que wax waxkati lu ñaaw lañ ay saagakat ay ñoo xamante ni tey ñoom ci seen jëmmi bopp lañuy ñuy incarné ñoom dañuy wax publiquement ne ñun fokkat lañ ñun waxkatu lu ñuy dëgg lañ ñun nangam ak nangam bu ko defee ñu invité leen ci télé bi ñu am fa lu tollook ay deux heures de temps une heure de temps di wax rek boo ko defee ñi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan loolu dafay am tafsir bu muy am ci moom dañuy dem ba dañuy banaliser li nga xam ni mooy wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw xatta nit ki koy def sax maanaam duñ ci amati solo ma sàmma def ko ak ma dem ba wax ko ñoo yam ci ñoom kon dama yaakaar ni li ñu war a njëkk a régler mooy injustice ci wàllu média bi ñoom ci seen jëm bopp ñu fexe ba recadrer seen bopp recadrer seen bopp ba lépp loo xam ni ñi ngi koy wane mu nekk loo xamante nii lu luy joxe exemple la ci ci ñi nga xam ne ñoo leen di seetaan yenn saa yi danga nga naan askan wi dañoo bëgg lu bon lu tax ñuy seetaan lii boo leen tegalee lu baax déedéet yàlla xam na ni askan wi defuñu daara kenn gënu leen a bëgg lu baax waaye dañ leen ko forcer bu fekkee da ngaa nekk sama classe gi yor sa jollos boo xamante ni yow da ngay wëlbati rek boo demee TikTok wala nga dem YouTube wala nga dem Facebook wala nga dem WhatsApp yow dangay xool rek te fi mu toll nii li gën a garaaw mooy am dafa am ñoo xamee ne gëm nañ ni média pour nga ubbi ko mu dox faaw da ngay def ay caaxaan dafa am ñoo xam ne sax ñoom dañ naan ah. <laughs> boo bëggee mu teel a dox daal nga teel a am ay abonné faww da ngay njëkkee ay musique faww da ngay mujjee da ngay njëkkee sulli ay yëfi jàmbur ak yu liy def buzz bu ci kanamee nag nga doog a jubal <laughs> dama lay jox dama naan la loolu c'est faux jëlal exemple écran bi ma taxaw di wax moom mooy Rafah TV ba mu juddoog léegi yàggul même pas trois ans est-ce que mas ngeen koo dégg ci lenn loo xamantis ni lu ñàkk fayda la wala loo xamantis nii tey lu wuuteeg suñu baax ak suñuy taqaalid la te pourtant bokk na ci ñi nga xamee ni ñoo gën a am existence ci sëbiye boo doon lim da nga ko ci boole kon faww ñu ñu ñu dindi yaras gi nga xam ni moo nekk ci ñi nga xam ni ñoo wax ne ñoom dañuy investir ci wàllu média parce que ñoom dañuy yaras jàpp nañ ne bala ñoo mën a jëm ca kanam rek faw ñu teg lu bon faw ñu indi wax ju bon du noonu faw ñu gëmloo leen ne nit mën naa def média di def rekk lu baax te téewul dafay am réussite boo génnee Sénégal dem bitim réew xoolal maanaam média yi nga xamee ni ñoo gën a siiw boo leen xoolee duñ teg musique duñ teg lenn lu ñàkk fayda xam nga lan la ñuy tega xibaar seen lépp xibaar la wala documentaire fii Sénégal ban média wala ban site moo fi spécialisé wu pour lan ci wàllu maanaam information rek rek rek yam ca benn ñaareel ba wala koo xamee ne da ngay gis muy documenté maanaam muy doc def ay documentaire di ko tegal nit ñi boo génnee bitim réew man ngaa wàññi lu tolloog ay cinquante sites yoo xamante ni yëpp ci wàllu documentaire képp la ñuy yëngu. te boo xoolee dañuy am ay plus de million abonnés ñoo xam ne dañ leen di suivre partout dans le monde parce que ñoom ñoo xam lu jëm ci wàllu média dañoo am xayma bi waaye ñoom ci seen jëmmi bopp day bari ñoo xam ne dañuy nelawal di ñu gëmmantuloo jàpp na ñun bu ñu waxee wàllu média rek mooy folklore fecc caaxaan euh, la ci aju la kon damay wax ni gis nga wax ju ñaaw ji ñu wax ni sëñ bii moo ko wax sëñ Mbeng mii njëkkewul ci moom te buñ deful ndànk du mujje ci moom ña waroon a tere ñoom ñoo terewul benn ñaareel bi ñi nga xamee ni ñoom ñoo yor waxukaay yi ñoom ñoo war a recadrer seen bopp ba tegaat seen milieu bi ci yoon ku ñuy jël ñu jël ko ci maanaam prof professionnalisme ak it xam-xam bu leer yenn saa yi dangay gis koo xam ne day feeñ ci télé bi kii day wax ba pare yow da ngay laaj ne waa kii ban xam-xam lañ ko jëlee. maanaam ban compétence la am ba tax ñu teg ko ci kanamu écran bi yenn saa yi moom ci jëmmi boppam day dem jàkkaarloog di laaj koo xamee ni yow da nga naan waa kii lan la def bañ war koo invité ci kanamu écran bi mu war a wax ak askan wi ak it lan la mën a jox askan wi comme leçon parce que moom ci jëmmi boppam du exemplaire faaqidu shay la yu'tihi nit mënoo ñàkk ay valeur ba pare bëgg ñëw ci kanamu askan wi di leen jox ay leçons de morale loolu mënta nekk kon nañu defaraat bu baax a baax penc mi te ñiñ ciy jox kàddu ñuy wax nañ ko seetaat te président de la république monsieur Macky Sall gis nga ñi nga xam ne ñoo nekk sa wet tey wax ay tooxi doona bis boo jàppee ni tooxi doona yi ñuy wax tax na sénégalais yi rayante wala tax na sénégalais yi ci jëmmi boppam nelaw ba tax lañ war a def ci wàllu vote duñ ko def wallaay xamoo sénégalais yi askan wu tàmbalee yeewu askan wu tàmbalee yeewu amul dara loo xamee ni mën na koo nelawaatal bam ne tekk lu dul ab njiit lu jub xoccu tey def njub tey wax njub kese moo ko mën a dalluwaat waaye askan wi ma gis képp koo xamee ni bëgg na leen a jiite faaw nga jubal képp koo xam ne bëgg nga leen jiite faaw ngay wax lu jub parce que xàmmee nañ pombiteer bu baax ak pombiteer bu nëb kon nañu delloowaat affaire yi ci yoon arab dafay léeb ne rubba kalimatin qatalat saaxibaha bari waa na kàddu goo xam ne nit jibal na ko ta kàddu gaa koy rey te xamu ko te bu fekkee nga xamante ni dañ laa yabal ci askan wi pour nga ruube bëgg a jël ci sant yi dóor leen ci sant sàngam bëgg a jël ci ñi dóor leen ci ñele ngir lan maanaam fànq ay élection ngir lan nelawal askan wi yaa ngi nax sa bopp wax ji nga wax fii ba ilaa yow mi diin keneen ku ko waxaat dañ naan ah moom de moog waxi diw dañoo yem te il ñi nga xamee ni ñooy ay màgget ci réew mi lekk jamonoy Abdou juuf lekk jamonoy Ablaye Wade Macky Sall ñëw ñu ratt ko ba pare ñëw bëgguñoo nelawaat loo ñooñu il est temps ñoom ñu arrêté xam ni ñun mënuñ ñoo nelaw loo bu fekkee ñoom dañuy def seeni i pour lekk pour maanaam duy seeni i ñoom nañ ko def waaye ñun nañ ñu musal ci lépp loo xam ne day taar réew mi wala lépp loo xam ne day tojante ay bopp ci askan wi askan wi da ngeen yeewu bu baax a baax xam ni yéen ñëpp benn bopp ngeen yéen ñëpp benn mbokk ngeen waxu kenn mbaa intérêt kenn bu mu tax kenn di toj bopp kenn yéen ñëpp na ngeen maasa jàpp kenn ku ci ne jàpp ne sa morom mooy sa mbokk ki sant Dias ak ki sant Poleek ki sant Diakhoumpa ak ki sant Ndiaye nañu xam ne ay sénégalais lañ c'est l'essentiel les restes c'est des détails waaxiru daawaana an alhamdulilah rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullah ndigal jëfee tapis rouge doon seen taalibe di liggéey ngir seen mbégte ci grand màggal Touba bi tapis rouge dafatina mëninam indi leen spécial promotion addiya ci ay salon Louis XIV à 799 000 salon royal rafet am qualité tapis rouge yéen la fi nekkal xoolal yi les salon ci cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille te si bii promo soo jëndee salon sept places tapis rouge may la quatre coussins moquette ak table basse tapis rouge a sillonné le monde pour essayer de satisfaire sa clientèle avec sa nouvelle collection de meubles turcs des chambres à coucher de six battants à six cent cinquante mille ci ay design yu raffiné ak tapis rouge promo table à manger six places de provenance turque à cent quatre-vingt-dix-neuf mille tapis rouge am na ay salon cinq places ci trois cent cinquante mille waa lii moom neexul promotion spéciale Magalu Touba ak rouge